di ñaan sunu boroom ni ñu ko tàmbalee ci jàmm ñu yeggale ko ci jàmm te taxawe lépp na ko sunu boroom bëggee te daje cee ngërëmam te fekkewaat ko at yu bari tam ànd ak wér ak tal tomb bi ñu fa séenee waxtaane ni ko sëñ Abdul Qadir junjee mooy yi nga xam ne yu sax la ci ñun ci wàllu diine ak ndono ak nan lañ ko war a sàmmee mooy lan ak nan lañ ko war a sàmmee thawaabituna diiniyatu wa turaasiya xaqiqatuha wa kayfiyatu almuxaafadati alayha li ñu tuddee nag ak thawaabit baat boobu ci arab buñ ko waxee li muy firi mooy ay mbir yoo xam ne mën a tuta soppeeku wala war soppeeku ndax cosaanu gum cosaanu ca aw xeet ba yegg ci war soppeeku wala sax yegg ci dootu mën a soppeeku daanaka loolu nag am na ci wet yu bare bare bare bari waaye li ñu soxal tey fii mooy li ci jëm ci wàllu diine ak sun ndono bu dee yi nga xam ne mooy suñu sawaabit ci suñu wàllu diine buñ ko dee tënk buñ ko doon yaatal yu mën a bari la lool waaye li mu mën a mën a bari bu ñu ko tënkaate danañ gis ne day dellu ci yetti yëf walla yent bu dee la ci wàllu diine yett yooyu la ci jiitu mooy li ñu tuddee al aqidatul ashariya la ca des mooy al madhabul maliki la ca tege mooy ak tasawufu sunni ak banenaat mooy qiraatul quraan bi qiraati al imaam naafi ala riwaayati warsh loolu kon mënees naa jàpp ne ñeent yooyu buñ ko tënkee mënees naa jàpp ne mooy sunuy cëslaay yu mag yi nga xam ne yu mënta soppeeku la ci sunu wàllu dégginu diine ak sunu wàllu dundiinu diine ndax lépp lu ñuy def ci diina lu ne ak li muy bari bari bari bari buñ ko dàqee day delluwaat ci benn ci yooyu ñu wax ba ko ñeenteel nag mooy loo xam ne dafa bokk ci asawaabitu turasiya te mooy topp ndigalul kilifa topp kilifteef yooyu yëpp insha allahu taala danañ ko gën a yaatal ci biir waxtaan wi insha allah waaye tënk ñeent yooyu noonu ñu ko waxee bu buñ ko bëggee gën a yaatal dañuy xam ne wala dañuy gis ne yooyu yu am cosaan lañ ci diine cosaan li bu ñu ko doon delloo ñoom ñett yooyu njëkk a tudd dañ koy delloo ci rek xadiisu jibril boobu nga xam ne moom la sayyidna Umar ibn Xattaab radiyallahu anhu nettali ñun ñëpp ñu xam ko bañ toogee ab jataay yonent bi alayhi salaatu wa salaam sayyidna jibril dikk fa ca meloo fa dikkee yoon meloo doomu aadama ak lam wax ak yonente bi alayhi salaatu salaam laajeem ko laaj mu tontu ko laaj ko fa ñetti yëf yoo xam ne moom la ko jëkk a laaj laaj ko lan mooy lislaam mu tontu ko mu laaj ko lan mooy liimaan mu tontu ko mu laaj mooy lixsaan mu ton ixsaan mu ko xadis boobu buñ ko càmbaree dañuy gis ne day wane ne diine kon li mu yaatu yaatu yaatu dañ koy delloo ci ñetti xaaj te mooy li ñu sëriñ bi daan jàngal radiyallahu anhu ci téeréem yi tàmbalee ko ca tazawudu sixaar jaar ko ci lu ma ne tazawudu subbaan aqsaamu diin aqsaamu diin rabbina al imaanu ba mu jeex kon ñetti xaaj yooyu mooy ñetti xaaj yi tënk diine yépp ak li mu yaatu yaatu ñetti xaaj yooyu buñ ko xoolaate ci geneen wet dañuy gis ne suñ boroom daf ko méngaleeg ni mu doomu adama ndax doomu aadama li ëpp solo ci li ko composé mooy xelam ak jëmmi yaramam ak ruuxam ñett yooyu nag benn bu ci nekk dafa mel daa am lu muy waxal ci benn ci yooyu composé doomu aadama bu jëkk bi mooy al imaan xel lay waxal al islaam jëmm ji lay waxal ndax imaan mooy daa ci wàllu ngëm ngëm ci wàllu xel la aju islaam mooy daa ci jëf yi lu mel ne koor gi ñu nekk lu mel ne takkusaan ji ñu doon julli léegi lu mel ne timis ji ñu julli ca kanam ak xeeti jëf yi lislaam yi ñu jëf yépp ka yor kurusam di wér ka yor kaamilam di jàngal xuraan yooyu yépp ci buntub lislaam la dugg mooy jëf yi nit ki def ci jëmmam bu mujj ba muy al ihsaan di wax ak ruuxu nit te mooy ba mu gëmee ba noppi di jëf nu muy fexe nag ba la muy jëf ak la mu gëm mu sellal ko tam dëggu loola moom la ñuy tudde al ihsaan yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne woon tontu woon Seydina Jibril ne ko mooy an taabudallaha ka annaka taraahu na in lam takun taraahu fa innahu yaraak booy da ngay jaamu yàlla mel ne yaa ngi jàkkaarloog sa borom di ko gis ak say bët te gëm ne boo jàkkaarloo moom di ko gis yow ngir ci say bëtin ngir kiiraay xamal ne moom mi ngi lay gis moom dara ump ko ci yow kon yooyu buñ xoolee dañuy gis ne mooy li tënk diine ji lépp xamul lan la nit di def ci biir diine mu génn ñetti yi mu dellu ci benn ci yi ñu tudd ñu gisaat ne ci beneen anam it buñ jàngataatee danañ gis ni buñ détaillé tuuti danañ mën a xaajaat attey diine yépp ci ñeenti xaaj ñeenti xaaj yi mooy ay mbir yoo xam ne daa aju ci wàllu pas-pas qadaaya aqliya aqadiya ay mbir yoo xam ne dafa aju ci wàllu jëf yi ak la ca aju muy qadaaya fiqhiya dañ ko ma ne tudde noonu ak yu aju ci doxinam diggam ak boroomam ak diggam ak àdduna ak ni mu ko war a jàppee muy qadaaya sulukiya mu dëppoog li ñuy tudde tasawuf ak bu mujj muy qadaaya tadbiriya te mooy àdduna si ñu nekkit nag yàlla daa bëgguñu dundal suuf si bëgguñu taxawu ko faww aajo woona ab nos aajo woona taxawu kon yooyu nga xam ne moo composé diine l'islam noonu la wàccee ci cosaan ci jam ci yonente bi alei salatu waaye bi mu wàcc ci benn ni fi yonente bi alei salatu wasalaam nekkee ba ni mu fi bàyyi ko lépp daa doon lenn lépp lenn la saxaaba yi di ko jëlee ci yonente bi alei salatu wasalaam muy balluwaay bu mag bi ña ca dooni boroomi xam-xam dajale yi ñu wax yépp xamandoo ko di ko jëfandikoo ña ca doonu day boroomi xam-xam itam lu ca nekk la cay seen wàll lañ ca mën a jël ñu jël ko di di ca jëfee lañ ca man luñ ca xamul ñu dellu ca ña leen ko gën a xam ñu laaj leen ko noonu lañ doon dundee gannaaw bi fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jógee euh, ñoom rek ñu nekk fi saxaaba yi ba niñ fi jógee ñoom itam taabi'un yi wutu leen fi loolu mooy li doon dox ñu dem nag ba jamono ji ñu tudd asru taxasus nga xam ne ci lañ toll ci wet gu nekk nag am ñoo xam ne ci lañ gën a joyal seeni gëstu ak seen xam am ñoo xam ne lu aju ci wàllu pas-pas ca lañ gën di yokk seeni gëstu ak a xóotal am ñoo xam ne lu aju ci wàllu jëf yi muy wàllu fiq ak lu ci aju la ñuy gën a yokk seeni jëf pa seeni gëstu ak a xóotal am ñoo xam ne la aju ca wàllu ixsaan ci lañ gën a joyal seen mbir ñooñu nag ñenn ñu ci nekk dem nañ ba ci yàgg ñu mu ñu mujj wutal leen aw tur ndax ni doomu aadama baaxoo mbooloo mu nekk ci barab mu nekk saa yu ci amee ñu ràññi ko rek féetewoo lenn lu ña ca des ñëpp féetewoo wut faw ña beru ñu am tur wuñ leen tuddee ngir man leen a ràññatle ak ña ca des mujj tur yi am am ñu ñu tudde al mutakallimun ñay gëstu ci wàllu pas-pas am ñu ñu tudde al fuqaha mooy ñuy gëstu ca wàllu jëf ya am ñu ñu tuddee at al euh, suufiya wala ahlu tasawuf ci njëlbeen gi sax amoon na yeneen tur amoon na obbaad amoon na zuhaad ba ni mu yegg si ci turu tasawuf waaye lépp rek li muy tegtale mooy ñu xam ne lenn li la woon cosaan li lenn la mooy lépp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la bàyyi ko amu ci lenn loo xam ne luñ dolli ci diine ji la wala luñ fi fent la bi nga xamee na nag dem nañ ba jamono gën a weesu foofu ba yegg ci lislaam gën a yaatu gën a tasaaro ci àdduna si yeneeni xeet yu bare bare bare dugg ca te lislaam dugg Afrique gi ñu nekk dugg bilaadu Faris dugg Rome dugg faneen ak faneen te ña ca dugg jóge ca barab yooyu ñoom itam wala ñu fekk leen fa ñu dugg ca amoon nañ ay gëm-gëm yu ñu amoon lu ko jiitu amoon ay culture ak yi civilisation yu nekkoon lu ko jiitu ñooña seen gis-gis yañ nekkoon lu jiitu ak pas-pas ya xam nañ ne buñ juggee ci lislaam duñ dugg rek tey ak suba lépp daal di seen wecc faaw mu am ay des-des ak ay jeexit doomu aadama noonu la baaxoo lim gëmoo nag lam façon nekk ca ba yàgg ca bu demee ba jóge ca it xaj na la ëpp solo dana ci jóg waaye faaw mu des ay jeexit yu bare bare yoo xam ne ca démbam lay bokk bu ko yëgee bu ko yëgut bi loolu amee nag tax ci wàllu pas-pas bari ay laaj yu bari yu juddu ci pas-pasi lislaam yi laaj yu juddu yoo xam ne bi fi yonente bi alayhi salaatu salaam di nekk mus ta juddu kenn mus koo laaj saxaaba yi bi ñu fi nekk ñoom dong kenn mus koo laaj ndax yittewoowuñ ko woon ñoom ay arab ñoo ci ëpp ñoo xam ne làkk wi dañ koy dégg ci dañ koy nàmp ni kolof di waxe aajowuñ yenn firi yu bari nekkoon nañ ci fitra boo xam ne itam lu bare bare laajuñ ko ci yenn xóotal yi ñii ñëw nag doon ñu yees am na lu leeroon ñi fi nekkoon démb ñoom leeru leen te bëgg nañ mu leer leen ndax diine ji nag ñëpp ko bokk ki ci dugg tey ak ki ci am téeméer at ñoo ci bokk ba àtte ñëpp ay julli lañ ñoo bokk ak ci lislaam ji loolu nag jur am borom xam-xam yoo xam ne ñoo jóg taxaw ngir jéem a leeral laaj yooyu nga xam ne moom la ñu bees ñoo ñu di laaj dolli si ci it am ñeneen ñoo xam ne ña ngi ca wet ga dugg siwuñ ci lislaam waaye dañoo nekk ca lañ nekk ca kéefër ba noppi fas yéene di def seen liggéey toujours ci nuñ mën a fexe ba di yàq diine ji ak nuñ mën a fexe ba si sàkkaloo nit ñi ci pas-pasi lislaam yi ñu jóg nag taxaw di gëstu lu aju ca wàllu googa ngir défendre ko ak leeral ko ñoom lañu tuddee al mutakallimuun ay kuréel yu bari lañ ci seen biir ay kuréel yu lislaam yu yaatoo yaatu yu bare bari yuñ xam juddoo ci mu'tazila yaak xawaarij yi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu mel ñu mel ñu mel na ñoom euh, laaju ca wàllu pas-pas wàllu jëf yi itam ay école juddu ca kon loolu mooy li ñu tudde almadahib mooy ngir yi ngir yi juddu ci biir lislaam nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi bàyyiwu ko fi bàyyiwu ko fi waaye ginnaawam la sosu donte na sosu gi nag firiwut na day biddaa walla day lu baaxut déedéet lu baax la ndax balaa ñoo xam ne lu baax la dañuy xam rek lan lay firi bu ñu xamee lan mooy ngir rek xam ne ngir du du ab safaan du biddaa ci diine ndax it doonul ne nag lépp luñ sos gannaaw yonente bi alayhi salaam rek du baax ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba muy tere sos da ko waxee ci wax na leer na lam ci jublu ndax dana man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu la wax ku sos ci suñ lii lu ci bokkut lu ci bokkut la wax bu ne woon ku ci sos dara rek kon moom lépp lu waaye sos du baax waaye lu ci bokkut la wax kon mooy lépp loo xam ne mënees na ko dellool ci ay cëslaay ci diine buñ ko sosee itam du tax ñu jàppe ko lu baaxut waaye lu baax lay doon kon ngir yooyu li ko tax a jóg rek mooy ngir jàngale diine ci anam goo xam ne nit ñi daañu ko mën a dégg daañu ko mën a xam ngir mën koo jëfe Euh, ci ni ko borom xam-xam yi di leerale dañu wax ne almadhab mooy ma dahaba ilayhi al imam fi lmasail lijtihadia danniya fi lmasail danniyati lijtihadia boroom xam-xam yi mag yi nga xam ne yegg nañ ca dayo booba ba am ay ngir kenn ku ca nekk xeeti masala yi nga xam ne ci diine du luñ mën a dogg ci ne nii rekk la demee ay masail ijtihadia la ña ca def ay farlu daf cay góorlu ci wàllu déggiin ba génne ci aw déggiin doxe ca doxin woowa jàngal ko ay nit ñooñu jàppe ko noonu jàngal ko ñeneen loola mooy li ñu tudde mazhab benn borom xam-xam cheikh muhammad bin abi madian nee na madhabu malikin ida qila al murad minhu alladi li malikin fihi ijtihad wa gayruhu mimma alayhi nasu la yuaddu madhaban lahu muassala id kullu ma sabata bid dalili yunsabu lil ilahi war rasuli kon lépp loo xam ne ab yaxub lislaam da cay ñëw alxuraan wala sunna ci anam gu leer boo xam ne amul lan lu ñu nattable loola kenn du wax ne ngirum kenn la waaye loola moom yàllaa ko benn tam lañ koy askanale bu ma ko doon misaal julli farata la duma mazhabu malik du mazhabu abu xanifa du mazhabu imam ahmad waaye loolu moom charia la boo xam ne noonu la ñëwee ci alquran noonu la ñëwee ci sunna ay textes yu leer nañ ñu tegtale ko bu ñuy wax mazhab ci yeneen détails ya lay aju kon yeneen détails ya ca lay aju léeg lañuy la ñuy njàpp wala la ñuy tudde faratay julli wala yu mel noona nga xam ne alquran tudd ko mu leer sunne tudd ko mu leer yooyee ca ñuy xool yoo xam ne ñii dañ koy jàpp ni ñuy jàppe ko ne donte ne ñenn ñu ci nekkit la ñu jàpp du doon ne seen waxi kese rek la wala seen xeli kese waaye dañ koy delloo ci ay cëslaay yu dëgër ci alquran ak ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon noonu ci la madahib aqadiya yi sosoo euh, am ci ñoom nag ñoo xam ne neexul bu neexut waaye bu ñuy wax dëgg rek dañu xam ne jàdd nañ nag ngir mi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rëddoon ñoom jàdd nañ ci ndax ak ëppal leen moo leen ko yóbbee wala xaj na ay njuumte ci ay déggin moo leen ko yóbbee ñooñu ma doon tudd léegi mu'tazila yeeg xawaarij yeeg ñooñu ñu mel ñooñu ñëpp ca ñooña la ñu bokk ak chia yi ak ñeneen ak ñeneen sax ay kuréel yoo xam ne amatuñ tey ñenn ñu néew ci ñoom ñoo fi des waaye bi lépp amee itam ak coowee ca am lépp wuute ci ay masala yu dul jeex am na nag ñooñ moom naka jekk musuñoo jóg ci nekk ca la yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekkoon bàyyi woo ci saxaaba ya ñu bàyyi ca taabi'oon ya ñooña ñoom nañ daan tudde ahlu sunnati wal jamaa ahlu sunnati wal jamaa ahlu sunnati wal jamaa euh, mooy kuréel bi nga xam ne moom mosu fee jóg ndax yonente bi alei salatu salaam buñ boole ci kuréel dañ naan kuréel boobu la bokk moom nag kenn du ko ci kuréel ndax moo fi indi li ay kuréel kuréel yi la mën a delloo ci moom wala ñu bañ leen ci moom kon ngir moom mu nga xam ne mooy ahlu sunnati wal jamaa mosu jóg jamono ju nekk itam am na ñu ko doon jëmmal ba biñ tollee ci jamono ji nga xam ne ci la coowul mu'tazili yi gën a bare gën a yokk gën a rëy daj àdduna wala fu bari bokk ci àdduna nguur gi fi nekkoon booba muy ad-dawla al-abbasiya jàppal leen tànk lool taxawu leen ci lu bare bari daanaka sax xaw ko forcé nit ñi ci la amee ay kilifa yoo xam ne ñoom dañoo jóg nag delloowaat nit ñi ci la doon cosaanu pas-pas yi loola ka ca a fés ci jamonoom mooy al imaam abul xasan ali ibn ismail al ashari radiallahu taala anhu wa nafaana bi moo jóg delloowaat nit ñi ci pas-pasi lislaam ya na ko yonente bi salallahu jàngale woon na nga itam ni la ko saxaaba yi doon dunde waaye boole ci it nag indi ci anamu njàngaleen mu am solo woo xam daa dëppook jamono ji mu doon dund ndax laaj yi juddu faaw ñu tontu ko ndax xam ngeen ne ki doon ku bees ci diine am na laaj yooyu ci diine bu koy laaj buñ ko ko mënta tontu wala ñu leeral ko lu mën a tax mu noppi buñ moytuwut la muy yàq ci moom mooy ëpp defal buñ moytuwut dana génnaat diine fësal ko wala bu ci génnaatut tam ci ay sikk sàkk woy wéy du ca jóg mu xam ne nag lii jafe-jafe bu mat a lijjanti mu jóg taxaw fas yéene lijjanti loola wuutu ca xeet yépp def ca itam jëf ju rëy joo xam ne taarix nettal nañu ko te kenn dootu ko fàtte ba tax boroom xam-xam yi jox ko cër bi ñu ko jox euh, tudde ko ne mooy ki nga xam ne mooy ki dimbale sunna si yonente bi alei salatu salaam gannaaw bi sunna ràppee ca jamono jooja ndax kuréel yu bees yi sosu te ay jaxas ak yi yëf yëfaan yu bare bari dugg ci seen biir ay jeexiti sax yeneeni xalaat yu du diine dugg ci seen biir moom mu ñëwaat leeral lépp daloo ko cosaan la loolu kon moo tax boroom xam-xam bu mag al imaam subki ci tabaqaat ya bi muy wax ci boroom xam-xam yi ngirum imaam shafii ba yegg si ci abul xasan ashari daa wax ne abul xasan moom buñ koy xool dëgg-dëgg dañu gis ne sosut sosut ab xalaat sosut itam am ngir waaye lam fekkoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi woon ko fi saxaaba yi jaaroon ca ba ba ko fi taabi'un yi jaar ba ba ko fi atbaa'u taabi'in jaar fi ba ba fi loolu la ñëw rek sulliwaat ko fésalaat ko jàngalewaat ko ci anam gog dana mën a dugg ci bopp yi dana mën a ubbi boppi nit ñi loolu rek mooy lim def kon daa di wax ne moo tax li ñuy tuddee al madhabul ashari yi wala al aqida al ashari yi bu ñu ko bu ñu ko ko askanalee itam askanale gi du lenn lu may rek taxaw bi mu ci taxaw ak jëf ki mu ci jëf waaye doonu day ne ay mbiri boppam la wala déet déedéet loolu itam du la am solo loo xam ne lu lu mata lu mata xam la lu mata bàyyi xel la itam ci mbirum Abul Hasan Ashari moom yi mu doon itam jëmm joo xam ne boroom xam-xam yi ëpp ci boroom xam-xam yi dañoo maase ci tagg ko tagg ko tagg yu rëy am na kenn ci ñoom Abu Bakr Abu Bakr as dafa wax ne mu'tazila yi dañ fee nekkoon jamono jooj mujjoon nañ dàmbe àdduna ak seeni xalaat ba jaxase boppi jullit yi ñii dugg ci seenum ngir ñee buñ ca dugg tam jaxase nañ lu bari seeni xalaat ba mujj yegg ci daal dañoo të kenn mënul leen dara ma ndax borom xam yi fi nekk lott nañ ci ñoom abul xasan ashari yàlla feeñal ko ca jamono jooja mu ñëw delloo leen suuf mel ne daa teg loxoom ci seen bopp bés leen bañ leen mut ci suuf amatuñ lenn luñ mën a wax amatuñ lenn luñ mën a lay lañ doon lay lépp mu layi ko teb sànni ca àll ba te loolu ku ne xam na ne feeñ na ci buñ delloo ci moom cosaanam xam nañ ne moom mii daa àdduna fukki at la am waajuram daal di faatu waajuram bu jigéen am ku ko denc koo xam ne moo doon kilifa gi gën a mag ci mu'tazila jamono jooju muy abu ali al jubba yi mu yaroo ca loola loola jeexital ci moom ba mujj nekk mu'tazili ci njëlbeenam loolu la nekkoon dund ci ay at yu bari lu war a mat ñeent fukki mujj am ca fés boo xam ne yàgg na ci jubba yi munazaraat yi mu daan def sax lu mu ca mënta teewee abul xasan la yabal moo ko cay wuutu ndax moom bu jataay bi jot teewee moom buñ sànnantee ñaari kàddu rek balaa ñett jataay bi daal di jeex ndax ku mu waxal ñaari baat bu ko bu ñetteelee dana la ifham dana la luum loo dootoo am loo wax ndax may gu ko yàlla may ci xam-xam bu bënn bu leer ak itam làmmiñ ak xel mu rëy mu mën a xam fu mu jaar nit waaye fa mujj ak kilifaam googee mooy daa mujj semmal ko nam semmale ñam daan yabal ñam ko daan yabal ca ñoom ci am masala bu ñu xam muy masalatu muraat wujub muraati salaax wal aslax alallahi taala xissa bu gudd la jarul dugg dañuy gën a guddal rek ba mu ca jógee gannaaw ba ca la demee nag ba am ay sikk sàkk yu ko dikkal moom it loolu du lenn lu may rek ku yàlla nar a sik sàkk yu bari ko dikkal ci pas-pasi mu'tazila yi ba tax mu def ab xalwa xalwa bi ñii nee nañ mat na ñeen fukki fan ñii nee fukki fan ak nangam la ba mu jógee ci xalwatu ba suñ boroom leeral leeralal ko nag dëgg dëggi nag lii na lii li fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bàyyi bàyyi woon li nga xam ne ku ci faatu ci njulit xaj na doo doo dajeek yàlla ci lu mu lu mu lay nattoo ëllëg ci wàllu ngëm ak pas-pas ca la génn dem ca jàkka ja fisal nag pas-pasam bu bees bii nga xam ne ci la nekk ci ab xissa buñ xam moom it jarul guddal euh, ca la génnee téeréem bu siiw bi ñëwee al ibaana fii usuli diyaana euh, wax ca waxin woo xam ne leer na ca ne kon génn na léegi ci lam nekkoon muy ak i'tisaal ñëw na léegi ci laneen te mooy euh, sunna loolu it jur na nag ay coow yu fi yu ci am tax ñoo xam ne jaar-jaaram yooyu mu jaar ci dundam sax am nañ ci ay jafe-jafe ñii ne abul xasan kat dëgg la génnoon na ca i'tizaal waaye ba mu ca génnee yéen ñii di ko tuddoo tey lii ngeen ne abul xasan faatuwu ci maanaam jaar na ca rek ab diir jógewaat ca faatu ci ñi lii ñu nekk ñun muy ñu ñu tudde xanaa bi lay ndax ahlu sunna wal jamaa itam buñ fàtte ne kuréel la boo xam dañoo amaat ci seen biir ñetti xaaj mooy li borom xam-xam yëpp dëppoo ahlu sunna wal jamaa amaan nañ ay madaris am na madrasa bu ñu tudde al ashariya mooy bii ñu nekk ñun te xam ko mooy bii suñ kilifa yu baax yi nekkoon cheikhul xadim radiallahu anhu am na buñ daan tudde al asariya moom la ñu tudde léegi asalafiya wala al wahabiya am na beneen bu ñu tudde al maturidiya ñetti kuréel yooyu ñoo composé ahlu sunnati wal jamaa am na nag ñu jóg taxaw te am mu ci bëgg cee génn ñenn moomale ko seen bopp ñoom waaye loolu moom saxut ci xam-xam li sax ci xam-xam borom xam-xam yi ñettale ko ci téere yu yàgg yeeg yu bees yi mooy ahlu sunna wal jamaa ñetti kuréel yi ñoo ko mas a composé musta yokk musta wàññeeku loolu mooy lu wér euh, ñooñu nga xam ne nag ñoo ko bëgg a boole seen bopp te loolu lu ñu xam ci doxinu doomu aadama la am na jëmm yooyu dayo bi leen yàlla defal day tax ba daanaka yàgg nañ foofu kenn dootu ñeme sax ñu bañ a bokk ci yow ku nekk da ngay bëgg ñu bokk ci yow bu ko defee dal la jaral nga wut lay ngir xëcc ko taf ko ci sa bopp génne ko ci loxol ñeneen tax na ñoom ñu naan abul xasan mujj na génn ci aqida bii ngeen di jàngale yéen tey delluwaat ci aqidatu ahlul asar mooy aqida al euh, aqidatul xanabila waaye loolu wérut te firnde yi teg seen ne wérut tam firnde yu ne xas la yoo xam ne mënee su ko lim sax ba mu jeex doon na ci rek abul xasan daa jàngal ay mbooloo mbooloo yooyu mu jàngal ñu ci bari dafa génn àdduna bàyyi leen fi ñooña dañoo wéy gannaawam nekk ci lii ñu nekk nii ñun jóguñ ca ba ca la ñu jote ñun bañ jot ci loolu firnde la bu ci Abul Xasan génnoon gën gaa néew bi te ñàkk ci ñoom ñu ñu histoire nett na gannaaw ba génn nañ topp ko moom ca la nekk ndax niñ xamee diggante nit ak ki ko jàngal ak jeexit yi muy def ci moom beneen ba itam mooy firnde ji gën a mën a bokk ci téeréem yi mbind mi ngi nii ci suñ ñu gis ko alluma mi ngi fi euh, maqalatul islamiyin yeneen téere yeneen ak yeneen yu bari yu mbind mi ngi fi risala ila ahli saxar yooyu ñu ngi fi boo ca demee la ca leer nañ ñi la ca abul xasan jàngale mooy li ñu jàng tey ci mawaahibul quddus ak suñ téere yi ñu jàng dara wutewu ci kon loolu moom wax la joo xam ne amul dara lu ko firndeel euh, kon ci loolu buñ doon nat ay jaaruwaayam ci dundam ñetti jaaruwaay dong la mën a doon ci lu wér ñett mooy yaru gam yaru ci li'tizaal ba jàngay teg ci njëlbeen génn jaar ci marxala boo xam ne dafa mel ne njëlbeenu marxalatu bokk ci ahlu sunna la détails yooyu gën détails yi lu mujj li mooy Euh, aqidaam bii mu jàngale ci anam gi nga xam na nag ci la wéy ba ni ci la gën a ci la génn àdduna ay dongam booy jàngale ko mu nekk ci ay téeréem ñu wéy di ko jàngale bi fii ñu ko fii ñu koy waxe tey ngir moomu nag sosoo ca penku ca Bagdad ay boroom xam-xam jàng ko mu doy leen ñu liggéeyal ko tasaare ko ci àdduna si am ñoo xam ne itam dañoo jóge ci yeneen i barab dem jàngi ko foofa ñun fii ñu nekk ci sowu jant luñ ñu tuddee alxarbul islaam yi te mooy réew yi féete ci sowu jant di ay réew jullit amoon nañ ci suñuy borom xam-xam ñoo xam ne dañoo teeloon a jàngi ci jamono jooja euh, ñëw indi fi pas-pas yi am na ci koo xam ne mooy kiñ ci baaxoo tudd ne madhabul ashari yi buñ delloo cosaan li ci sowu jant ci ci sowu jant dañu wax ne moom mooy ko fi dugal muy Daaris ibn Ismail al Fasi nga xam ne jamonante na ak Abul Hasan Ashari gannaaw bi ñi ci jaar ñëpp jaaraat ci ci ay borom xam-xam ba nu yegsee ci al imaam Muhammad ibn Yusuf Sanusi mi nga xam ne mooy borom umul barahin bi sëriñ bi way ci Mawaahibul Quddus mu jëf ci jëf ju rëy jëm ci jëf xam ne taalif na lu mat juróomi téere ci pas-pasu al aqida al ashariya téere bu mu tuddee buñ tuddee al aqida al kubra al aqidatul al sugra ak buñ tuddee sugra sugra ak sugra sugra sugra sëriñ bi anhu yooyu yëpp jël na ko liggéey ci ay liggéey mawaahibul xudus li nañ ko mooy umul barahin yeneen yu ndaw yooyu ci des it liggéeyaat na ci ay liggéey ba ca bu ndaw ba ca gën a ndaw muy alxafida soxra soxra soxra sëriñ bi way na ko euh, loolu it di am lu muy jëmmal ndax Sanusi mii ci jamonoom dafa mujjoon fekk aqida ashariya yegg ci tàmbalee lompañ ndax ay nguur yu fi jaar doon ko xeex ba noot nit ñi ba def ci ay jëf moom bi mu ñëwee mu dekkalaat mbir mi delloo ko ci cosaan taalifaat ci lu bari jàngale ko gën koo tas gën koo leeral ba mujj di dunde bay yegg si waat fii tey kon loolu itam danañu jox ne sëriñ bi bind gim bind ci téere Sanusi ak noonu di ci delloo boppam bi aqaa'idi Sanusi sharif fi xaqi rab euh, xaw ma nu mu ko waxeeti ca xasida googu ci mënoon baaxal xadim loolu am na lu muy tegtale am na lu muy tegtale jàpp naa ne bokk na ci li muy tegtale loo xam ne ñëpp danañ ci mën a dëppoo muy dekkal gu bi dekkalaat moom itam aqida ashariya ak wan gum ñuy wan di ñu joxañ nañu mooy pas-pas bi gën a mucc bi nga xam ne ci lañu war a ŋànk ci lañu war a teg suñu tànk ndax it nag mooy pas-pas bi nga xam ne moom la borom xam-xam daan wax ne mooy aqidatul awliya nit yàlla yi te loolu lu neex a xam la kàngami aqtaab yeeg awliya yu mag yi ñu xam daanaka yépp ñu néew nga ciy génne ñi ci des ñëpp ay ashaira leen te mën naa ci tudd Cheikhul Xadim yi tudd ci Cheikh Ahmad Tidiane yi tudd ci Cheikh Abul ak ñeneen ak ñeneen ñeneen ñu bare bare bari ci ay nit yàlla yu mag boroom xam-xam yu mag yi moom kenn waxale wu daanaka boroom xam-xam yu lislaam yu mag yi ngay dégg yépp daanaka mën naa laa wax ne quatre-vingt-dix pour cent ci ñi ngay dégg ñépp di gis seen yi ay Ash'ari lañ jërul guddal euh, loolu moo ëpp tënk la ci bu yomb a xam laaju nag ca wàllu jëfe itam mooy li ñu tuddee al islaam ca xadis ba te mooy fiq muy ngir yi fiq yi moom it bi fi yonent bi aleyhi salaatu salaam jógee am ñu ca taxaw taxawaay ñu war a taxaw nañ ko defee ci aqida rek ba mu yegg ci kuñ daan tudde al imaam malik ibnu anas radiallahu anhu muy kàngam lu mag gane àdduna mag madina ci atum juróom-ñeent fukk ak ñett ci gàddaay yonent bi aleyhi salaatu salaam jànge fa mosu koo génn di jàngi fenn fekk fa kàngam yu gënoon a mag ca taabi'un ya wala ca atbaaw taabi'in ya euh, taabi'un yi imam malik wax nañ ne fekk na fi lu mat junni ñoo xam ne ñoom it fekk nañ fi junni ci ay saxaaba loolu am na lu muy wane ndax fekk fi junni nit ñoo xam ne misaal nga ne man fekk naa fii ci Touba dund naa fii junni nit ñoo xam ne dund nañu junni nit ñu ñu ñu dund ak Cheikhul Khadim radiyallahu anhu loolu am na lu muy tegtale mooy ngir nga dellu ca xam la sëñ bi daan jëf dëgg dëgg dëgg te dara du ko kooj dan la yomb dan la yomb yow lool maanaam say jëf pour mu firndeel ne daa dëppoog la sëriñ bi doon jëf loolu la war a yomb lay doon ndax am nga ay firnde yu bari wala am nga ay delluwaay yu bari ñoo mën a dellu ci ñoom ñoo xam ne ñoom it dañoo dellu ci ay delluwaay yu bari ñoo xam ne dañoo jàkkaarloog sëñ bi muy jëf ak di wax ñuy dégg kon sens boobu la imam malik am muy sens boo xam ne kenn ci borom ngir yi ci des amu ko mu doon kilifa goo xam ne it ñëpp commencé dëppoo ci ak kilifteefam ñëpp commencé dëppoo itam ci xam-xamam ñëpp commencé dëppoo ci ragal yàlla am ñëpp commencé dëppoo ci ak jiitoom ci wet yëpp itam doon koo xam ne euh, borom ñeenti ngir yi ñuy tudd Abu Hanifa moom imaam Malik imaam Shafii imaam Abu imaam Ahmad ibn Hanbal moom imaam Malik man nga ne moo ci koo xam ne mënees na koo jàppee kilifa wala mënees na koo jàppee sëriñu ñett ñi ci des ñëpp ndax Abu Hanifa moom moom ak imaam Malik euh, waaye teewut jële na ci imaam Malik Shafii jële na ci imaam Malik Ahmad ibn Hanbal jële na ci Shafii mi jële ci Malik kon mooy Ahmad ibn Hanbal moom dongab dongab Malik la ak yeneen ak yeneen yu bari ci ay manaaxib ak ay jagle yu ko yàlla defal jamono ji mu nekkee Madina di jàngale ak xam-xam bu bari boobu mu am ak ragal yàlla gi ak wegu gi ak bëgg gi mu bëggoon Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba fës ci tax fu ne ci àdduna ay nit jóge fi dem jàngee ci moom bañ fa jógee tasaat ci àdduna si ñoom it dem jàngale ji lam doon jàngale amoon na ci soowu jant gi lu ëpp fanweer ci ay borom xam-xam yu ñuy tudd ñoo xam ne jóge woon nañ fi dem fekk imam Malik Madina jànge ci moom ca ba muy dund jóge fa dellu siwaat ñëw jàngal waa gox bi ñu gox bi ñu jóge woon loolu nag moo sos li ñu tudde almadaris ci madarisu almadhabil maliki muy ñeenti madaris yu mag almadras almadaniya al madrasa al misriya al iraqiya al maghribiya benn bu ci nekk ay kàngam yu mag nekk fa yoo xam ne am na ci ñooñ daanaka ñoom rek xaw nañoo mën a sosu mazhab rek xaw nañoo mën a sosu mazhab ku mel ne ibnul qasim ca égypte ku mel ne ibnu abdul hakam ca égypte ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ay kilifa yoo xam ne seen xam-xam jéggi na dayoo seenu ragal yàlla jéggi na dayoo li leen yàlla may ci cër ci màggaay ngir xam-xam ak ragal yàlla ak jaamu yàlla gu kawe euh, histoire dootu ko fàtte mukk lu rëy rëy rëy la noonu nag la ña jóge woon ca sowu dem ca imam malik dellu siwaatee jàngale siwaat ngir mi fii am na ku ñu tuddee Zayaad ibn yi moom la wax ne moo paw imam malik bi mooy ki ko njëkk dugal Afrique ñeneen ña ca topp topp ca ba mujj ñu amaat ci ab daayoo moo xam ne daanaka kenn amuwu ko ci ñoom ndax yegg na ci far ñi solo Muwatta ci Imaam Maalik ñu bari lañ mbooloo mu bare bari la waaye riwaaya bi ci gën a siiw te gën cee sax mooy riwaayatu Yaxya ibnu Yaxya Laysi te Yaxya ibnu Yaxya ibnu Yaxya Andalus la la dëkk bi nga xamee na nag ngir mi dugg na ci sowu jant am fi doole ji mu fi am amoon na ay nguur yu fi jaar wuute ci ay dox yi ñu doxe am na ci nguur bi ñu fi tollee dëgëral lañ mazhab bi taxawu ko waaye am na ci ñooñ histoire la ñu nekk mooy xeex nañ mazhab bi luñ man lu mel ne ad-dawla al-murabitiyya xam nañ ci ñoom ne li ñu histoire nekk li ci seen doxin tolloon nañ jamono jot mujjoon nañ yegg ci dawlal murabitiya yeggoon nañ ci taxaw woon nañ mazhab bi laa bëgg a wax taxaw goo xam ne taxaw gu fës la seen gannaaw mu waxi duni bi ñëwee ñoom li ñuy soxna li mooy safaan bi lañ def lu ci am ndax anqida charia ñoom ñaari kuréel yii dañ cee safaanoo nañ ci doxee murabitun yi dañ doon xeex anqida charia di saxal anqidatu ahlul asar mazhab malik ñu doon ko taxawal moom di ko dëgëral muwaxidun ñi leen wóotu def safaan bi di dëgëral madhab ashari yi di ko taxawu di ko dëgëral di xeex madhab imam malik waaye yàlla dogal biñ demee ba jeexitam ba jógee fi madhab malik wooy di dund ndax nit ñi nga xam ne ñoo ca nekkoon bi ñu leen dee jéem a not di leen ci jéem a jëlee itam xam nga bokk na ci li nga xam ne borom xam-xam yàgg nañ ko wax xalaat xalaat lañ koy xeexee waaye boo ko xeexee doole du sotti ndax la mu jur rek ak fipp lay jur génn ay nit ci ngir boo ko dëggee def dëgg dañ ko jaare ci xam-xam ko jaare bañ jaare ba dugg te ñoom it waaye boo ko jaaree ci force ak doole doole yi nguur safaan lay jur mën nañoo dem nag ba mujj nooy ndax mënaluñ la dara mel na dañoo génn ci la nga bëggoon ñu génn ci waaye saa yu sa doole jeexee ñu fittiwaat delluwaat ci la nekkoon loolu mooy li ahlul maghrib al islami def ci mazhab Malik ci jamono ji nga xam ne ci la ko addawla muwahida muwahidiya di di xeex dañoo delluwaat ca lañ nekkoon dëgëral mazhab bi taxawu ko euh, ba mujj mu nekk mazhab boo xam ne mooy al mazhabu rasmi ci al garbul yi bépp ñépp ci lañ maase nekk ci lañ tënk Afrique sowu jant gépp ak Afrique gi féete euh, féete bu gànnaar ñépp ci mazhabu imam Malik lañ nekk la ko tàmbalee ca Égypte rek dafa tasaaroo woon gannaaw ba la xaw new doole waaye dafa tasaaroo woon Égypte jaar Libye jaar foofu mu jaar fépp Tunisie ba ñëw ci suñ réew mii ñu nekk jàll ci réew yi ci suñ gannaaw yi ci suñ wet yépp mazhab Malik lañ xamoon moom lañ jàngoon boroomi xam-xam yi fi nekkoon itam ay boroomi xam-xam yi ngirum imam Malik lañ ñenn ñu ca nekk itam yàlla dafa leen tawfiix ñu def ca lañ ca def ci ay jëf yu rëy yàgga wan nit ñi itam na xamal leen ne leen ngir mi ci ngeen war a tënku ndax nit ñu nekk gox bañ ne la fa nopp bu doonee lu wér bu doonee lu wér lu dëppoog sunna Sëriñ bi sallallahu alayhi wa te dara kóodi ko ñooña ca loola lañu war a nekk ndax xam ko ak jàpp moo gën a yomb ci ñoom génn ko di dem ci la nen ku nekk ci sowu jant misaal moo koy joxe mooy ku nekk Sénégal yi tey jàng ngirum imam Malik nekk ci moo la gën a yomb ndax boo ci nangutu tënku itam diine caaxaan dong nga nar a dunde maanaam sa diine ci jabatu la nar a mooy li ñu gis suñ jamono ji rek nit koo xam ne li muy def lépp xamut xamut dara li muy day day day day talfiq talfiq ay mazahib lay def masala bii fee la koy jële masala bee la la mu jël benn masala sax boo xam da koy talfiq ci ay mazahib te du xam nu mu def parce que xamut mazhab benn bu leer boppam amut day jàpp day jàppatu rek fu mu déggee benn borom xam-xam wax ca mbooy ga mu ñëw jël ko daan dégg naa borom xam-xam bu wax loolu de sukkandikoo ci noonu ci mbir doona ne fu borom xam-xam waxee ñu jël ko du demee noonu doonut itam ne ni ñuy naxe nit ñi tey ñi la ñu war a jële mbir fuñ ne laa rek qaala allahu nga ne kon ah alxuraan wax na ko ab aaya la wala yonente bi alei salatu salaam ko wax ab xadis la déedéet alxuraan bari nañ ci lu ci nekk loo xam ne kenn du ko jëfe am na lu ci nekk loo xam ne lu bari lu ci nekk loo xam ne kenn du ko jëfe xadis waxi nopp kenn du ko jëfee lii may wax xaj na wax di dana rëy ci ku ko xamul waaye ñoom seen jiir yi ñi jàng usul xam nañ li xaw alxuraan bari na ci ay ayat yoo xam ne man soo xalaat doxatut doxatut yeneen àttee koy wutu kenn ko jëfee te teewul mi ngi ci alxuraan bi ñu di ko mokkal di ko jàng bi bi sax am na ay xadis yoo xam ne itam man soo xalaat doxatut yooyu kenn du ko jëfee te pourtant mi ngi ci alxuraan ji ba tey mi ngi ci xadis yi ba tey ñu di ko jàng dees ku fi jëlee dañ koy jàng kon doonul fuñ na laa alxuraan nee na wala xadis nee rek nga ne kon da ngay jëfe loolu itam nit ñi war nañ cee yow ba desu leen ca nax moo tax ba xam-xam yi daan wax ne ñi nekk ci soowu jant ñëpp ci ngirum imam Malik lañu war a tënk ci wàllu fiq Sidi Abdullah wax na ci maraqi sood ne summa iltisaamu madhabin qad dukira sixatu fardihi ala man qasura koo xam ne yëggoo ci dayoob mën a ijtihaad lii sa farata mooy da war a tënku ci ab mazhab di ca dox di ca dund loolu nag ci gàttal bu doon suñ jamono suñ réew mii ñu nekk buñ ko fi doon wax kon da nga naan ci gàttal ñépp ay malikiin lañu war a doon ndax darajatu ijtihaad moom borom xam-xam wax nañ ba mu fi géejee yàgg na ci darajatu ijtihaad borom xam-xam wax nañu ba mu fi géejee yàgg na kon nit ki amut sañ-sañu di génn mazhab bi di dem ci yeneen mazhab ndax xotti war mooy mazhab bi lay doon indi jafe-jafe ci société bi mu dund tam lay doon euh, waxuma laa nag moom génn ngir yi nga xam ne mooy ñeenti ngir yi nga xam ne mooy yi fi des ñëpp dëppoo ci seeni masala leer ñëpp xam ko lépp lu ca nekk mutlaq taqid nañ ko lu ca nekk am tafsis nañ ko lépp lu fa dib charte wala maanaam leeral nañ ko amatul lu ca lënt lu nit di umpale lépp leer na xaj na loo yëg loo yëgul waaye lépp leer na kon waroo su koo génn kenn amul sañ-sañ boobu wàllu tasawuf itam noonu la deme yonente bi alei mooy suufi bu mag bi moo dund tasawuf ci anam gëm gën a matee gëm gën a wére saxaaba yi jële ko ci moom ndax tasawuf du lenn lu may dundal maqaamul ihsaan an taabudallaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak loolu rekk la laneen liñ ciy gisaat lépp itam doon lu wér ay jumtukaay la yu ñuy jaar ngir mën a dundal loola ngir mën a yegg ca loola weesuwul lii kon tasawuf mooy maqaamul ihsaan dundal maqaamul ihsaan du leneen tur wi nag dëgg la lu sosu la waaye tur wu sosu wurtu déranger kenn li am solo ci mbir te xam-xam saxal ko mooy mbir moom duñ ko delloo ci tur wa rek waaye la ci solo mooy lam doon moom ndax tur wi mën naa rafet te lam doon du baax lam doon it mën naa baax te tur wi du rafet kon tur wi duñ na rek tur wi daal lu bees la jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko fi kon léegi dañ koy sànni déedéet nañ xool dëgg-dëgg yi la ca biir lu mu la ca biir moom la ca wér dëgg ndax it nag faaw ñu xam ne tasawuf it ay nit yokk nañ ndax it loolu ci ci doomu aadama la topp ci mbir mu mën a doon saa yu yàggee rek faaw ay nit daan ci dugal dara loolu moom noonu la yàlla baaxoo bindee bindee doomu aadama ak doxinam diine yi looloo ci amoon ba mujj suñ boroom indi diine ji mujj mu diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ko indee itam mu doon diine joo xam ne mënatu daneen diine dootu ñëw gannaawam te nit ñi faaw ñuy soppi di leen di war a delloowaat ci cosaan la moo tax suñ borom taw feexal yonent bi alayhi salaam téeméeraat yu nekk dana ay ay mujjadit yoo xam ne danañ yeesalaat diine ji delloo nit ñi ci cosaan la suñ jàmbar ji ci mu jëddi dun yooyu la bokk ña ci gën a mag yeesalaat diine delloo ko cosaan la gën a mag la gën a leer dëppoog na ko yonent bi sallallahu alayhi wa doon doon jàngalee eh, waaye kon dëgg dëgg tasawuf moom cosaan la ci yonent bi alayhi salaam lu jóge dundiinam ak saxaaba yi ak lam leen doon xertal ak lam doon dunde ak ñoom ca la jóge mu neesu ko détaillé ndax waxtu du ko xaje ko xajoo waaye lépp lu ñuy wax ci tasawuf sufiyanke yi saxal ko sufiyanke nag laa wax dëgg-dëgg saxal ko muy lu bu ñu delloo ci alxuraan ak sunna gis ko mu am ay cëslaay yu wér yu kenn mënta daj ay cëslaay yu wér ci alxuraan ak sunna loolu moom amut lu ñuy sax nattable waaye nag euh, bi nga xamee ne yonente bi aleyhi salaatu wa salaam na fi saxaaba yi ñoom doon dund ca dundin woowa teewut dem seen jamono yi amoon nañ ca gënoon a fés ñu daan tuddee lu sufa ni mu demee ci wet yëpp itam ndax ca wetu xam-xam yooyu itam saxaaba yi doon nañ ñëpp commencé woon doon ay borom xam-xam déedéet da caa amoon ab kuréel boo xam ne ñoom xam-xame seen yitte waxtu wu nekk ñu ngi gëstoo ko xool ay masala ak ñu ngi koy lijjantee am na ñoo xam ne ca marché ba la ñu xëyee ko yàndoo ay jullit lañ ñoo gën ñeneen waaye nag doonu ñoo ne ay borom xam-xam lañ daan def mooy lu leen daar ci seen diine luñ bëgg a xam ñëw laaj ci yeneen seen moroomi saxaaba yi leen raw ñu laaj leen amoon na ñu doon tudd al muftuun ci saxaaba yi ñooñ xam lañ am nañ ca ñoom ñuñ xam ñu ñu lim ñoo xam ne ñii ñoo daan ñaan fatwa ci saxaaba yi ñu xam leen loolu amut lu ñuy kenn suñu ko wedd mi ngi ci téere yi euh, bi nga xamee na nag yonente bi alei salatu salaam bàyyi ko na fi saxaaba yi bàyyi koo fi ba jamono tàmbalee fag nit ñi dëgmal àdduna dëgmal bu ëpp bu jéggi dayo la am ñoo xam ne ñoom dañoo jóg def na ñeneen defante wàllu xam-xam yi ci des ñu ne ñoom it dañu jóg delloo seen bopp ci cosaan la yonent bi aleyhi salaatu salaam doon dund ak alxawaasu min asaxaabati ridwanullahi alayhim ñooña ci njëlbeen dañ leen daan tudde al ubbaat jaamukat yàlla yi parce que dañoo gis ne ñooñu ni ñu farloo ci jaamu yàlla ak ni ñu ci xire ak ni ñu ci fóotale yeneen jullit ñi ci des yëguñ ci ñoom foofa ñu leen di ràññee tur woowu na ma ko waxoon ca gannaaw faaw ñu wutal aw tur wu ñu ràññee boo ràññee ko ci biir mbooloo ñu dem ba caag ñu leen tudde parce que seetlu nañ ne itam kuréel bii kat léegi niñ fese ci dëdd àdduna ak wan ko gannaaw ak gannaawal ko ñi ci des ñëpp meluñ ñoom kon faaw ñu am tur wuñ leen di melale ngir buñ leen waxee ñu xam ne ñee lañ ca lañ demee ba nag ñu leen di tudde as-suufiya léegi loolu mooy ku bañu turu al-ubbaad ak zuhaat ca jamono dañ ko doon wax. normalement waroo bañ turu at tasawuf wala suufiya benn la rek ay istilahaat kese la dara ay melokaan la ay ay tur la istilahaat la ñuy tudd ay nit ngir xàmmee nangam te borom xam wax nañ la mushahatu fi istilah moom amul ngaayoo nit wu ne nit ñu ne am nañ sañ-sañu seet ay tur yañ dëppoo ci seen biir tudde ko ay tur yi mbir yañ seq ci seen biir waaru yàlla seen istilahaat yooyu ñu yor siin zayd saab yu saa yu nangam yooyu kenn du ko critiquer pourtant moog lii ñëw rek ñooyam amuñ benn différence dara yu wutelu leen li am solo mooy nañ xool la ca biir lu mu doon te la ca biir moom dëgg-dëgg bu ñu ko jàmbaree xam ne dëgg-dëgg tasawuf amu ci dara lu wuuteeg li yonent bi sallallahu alayhi waaye biir tasawuf boobu it bi mu sosoo nag ba yàgg mujj na moom it amaat ay ay kuréelaat ci seen biir ay xaaj ñu sosowaat ci seen biir amaat ay déggin mooy ñu tudd madaris al madaris asuufiya boo demee ci borom xam-xam yi jàngat taarixu tasawuf lislaam yi dañ leen di catégoriser naan a tasawufu sunni a tasawufu falsafi ba jeex madaris yooyu ñu xam am nag jàmbaar joo xam ne kuñ daan tuddee alxaarisul muhaasibi radiyallahu anhu doonoon koo xam ne daa fesoon ci jamonoom ci moom tasawufam mu fexe ba lëkkale ko ak cosaan la rek maanaam fas yéene daal buum gëm jàppoon du ko ba ak lu jamono soppiku soppiku du ko ba lu xaal yi bari bari ci moom lu leer yi bari bari ci moom it dana fexe bay contrôler boppam di ko not dana fexe itam di sàmmonteeg zahiru sharia ci lépp di sàmmonteeg la doon cosaanu mbir ya na ko yonent bi sallallahu alayhi wa bàyyi woon am ab dongaam bu mag muy aljunayd ibnu muhammad abul qasim di borom xam-xam moom it di kàngam lu mag lu ñëpp dëppoo ci xam-xamam ci wàllu fiq ak ci xadis ak ci xeeti fànni xam-xam yu bari yu dul jeex ñëpp dëppoo itam ci ragal yàllaam ñëpp dëppoo ci ak jiitoom ci fànni xam-xam yëpp ak njub ak sell ak ragal yàlla junayd moomu moo jógaat gannaaw bi nga xamee ne yeneen xeeti kuréel yi tàmbal naa suuf ci biir tasawuf mu delloo moom tasawuf ca cosaan la lam doon sàmm jàngkat yi koy jàngat di ko tudde ak tasawuf as sunni wala ñu ne ak tasawuf al junayd yi benn la boo jox rek benn la morom ja lay wuyu tasawuf boobu nag nga xam ne moo dëppoog na ko yonente bi aleyhi salaatu wa salaam doon jàngale raxuñ ca dara doonte ne sax yeneen madaari suufiyee yi lu mel ne ak tasawuf falsafi ñoom Cheikhul Akbar Ibn Arabi ibnu sabain ibnu farid nang ñooñu yëpp euh, lay problème ci ñoom rek mooy seeni wax daa xóot ba biire ba neex te dégg waaye ñoom it lañ nekk dara lu te wuteeg sunna amul lay jafe-jafe ba rek mooy problème bi ñu am ak ñi leen mënta dégg mi ngi mel ne rek jàngoo dara ci mathématique dem fekk ab professeur mat buy def cours ca université nga toog muy jàngale boo yeexee da naan kii daa dof ay waxi dof rek lay wax loolu lu mën a lekk la maa ngi fàttaliku leçon bi ma njëkk a jàng ci réew bi dama mujj laaj taxawal naar bi laaj ko ne ko léegi lii lu muy maanaam ku ko fan lay mujj lan lay jariñ parce que jàpp ma ne war naa mën a am njariñ ay rëdd yoo xam ne xaw kenn xamul luy firi li ma bëgg a wax mooy yaatoon sa bopp da ngaa waroon a dem laaj leen ñu leeral la li ñuy wax lu mu wala boo demee ba xam ne mënoo ko dégg nga noppal sa bopp xam ne bokkoo ci wax ji boo ko mënta dégg taxoo koo jóg bàyyee ko ñi ko jóg ñu dégg ko booba jàmm na ñooy waaye boo force li ngeen di wax dama ko war a mën a dama ko war a dégg boobaa jafe-jafe leen di euh, tasawuf sunni boobu nag ñu sàmm ko moom it ba mujj li ñu tuddee turuq suufee yi juddu ba ca jëkk mooy ab tariqa al qadiriya ca Cheikh Abdul Xaadir ca Baghdad ca al qarn alqarnul sadis hijri jaar fi mu jaar tasaaroo ba kuñ daanoo abu madiyan al gaws dajeeg moom màkka ca kaa ca aj ga jëlee ci moom tariqa bi ñëw tasaarewaat ko ci sow jant abu madiyan al gaws Marok la dëkkoon tasaarewaat ci sowu jant ña ko jëlee ci moom jëlee ko ci moom muy continuer ba yegsi ci shoab yi ñu xam ci tariq xadriya muy ashoab al kuntiya cheikh sidi mohamadou kunti ma ca fask mu yàgg ma ca xarnu taasi hijri muy continué ba yegg si Cheikh Sidi Moxtar Kunti mi ñu xam ak doomam Cheikh Mouhamadou Khalifa ba yegg si Cheikh Sidi El Kabir ba yegg si maam ñun ñi muy waa Mbàkke ak Mbusoobe muy sëñ Mor Anta Sali sëñ Sàmbatu Kuloor Ka sëñ Mbusoobe ñooñu jëlee ci Cheikh Sidi El Kabir tariqa Qadiriyya tasaaroo ci ci Sénégal gii Chouba Fadil yaa am muy waa kër Cheikh Fadil ibnu Mamin Cheikh Mouhamadou Fadil ñoom Cheikh Saadou Abi Hak Cheikh Maal Aynayn ñooñu ñu tasaaroo yëf yi continuer ba tariqa xaadira tasaaroo ci Afrique sowu jant wa bil xusuus ci Sénégal ba fii ñu koy waxee mu nekk tariqa bu fi am ab teewaay am fi doole am beneen tariqa bu juddu gannaaw bi muy ab tariqa chadiliya kim feeñe ci loxo mooy Cheikh Abul Hasan Chadili dëkkoon Maroc Romaari gannaaw bi mu jógee fi dem Égypte moom it ay nit jëlee ko ci moom ba mu mujj doon ay kuréel ay furon yu bari naasiriya nag ba mu jeex ba ni mu yegsee sowu jantaat ba dugg Mauritanie ba dugg Sénégal Sénégal gii amoon nañ suñuy mag ñoo xam ne ay chadali yun la ñu woon al euh, imaam euh, almaami Abdul Qadir Kan ca Fuuta ab chadali la woon kiñ daan wax sëñ Mor Gallaay Jaw ca borom xam-xam yu mag yi la woon ci ñu jiitu sëñ mag bi ci ak mag tuuti ab Chadili la woon ak ñeneen ak ñeneen waaye mu mujj nag tarixa bi moom mujj néew doole ci Sénégal ba fii ñu koy waxee nii tey yaakaar naa ne bëreetu fi am na rek tuuti ca boori Rosso waaye bëreetu fi lool. ak Tijaani ya sos ginnaaw bi ala yadi Cheikh Ahmad Tijaani radiyallahu anhu ca Maroc moom it jaar fi mu jaar ba Cheikh Amarul Fouti dugal ko Sénégal wala boog gën ko fee dëgëral gannaaw bi mu jaaree fi mu jaar Cheikh Maodo Xaafis ak Cheikh Mawlud Fall moom. mu tas ko ci Sénégal ak réew yi ñu dendal Maleek gox yooyu yëpp ba zawaaya yi ci juddoo juddoo ci nga naan tey Tiwaawan ne zawiya euh, Canaba ne Kawlax tudd yeneen ak yeneen ci ay zawaaya yoo xam yëpp ci ab tariqa tijaaniya lañ sosoo ba loolu lépp dem ba ci àgg mu mujj moom it yeneen tàmbali caa dugg na baaxoo rek suñ boroom waajal jàmbaar joo xam ne mbooleem li fi yonent bi aleyhi salaatu bàyyi woon te ñu war koo jar da ko li fi sunna si yëpp ci anam yi xam-xam ci anam yi suluuk ak tasawuf yëpp lañ fi bàyyi woon yàlla dajale ko ci moom moo am ndigal ci yonent bi sallallahu alayhi woote yoon woo xam ne da ci sóob ñi ko wuj ji ñëpp ànd ak ñoom jëm ci seen borom ci anam nga gën a gaaw anam nga gën a gàtt muy Mawlaana Cheikhul Xadim la tarixe yi tënk itam Euh, bu ñu ko gisee lim ñuy wan rek mooy li ñuy tudde suñuy sawaabit cosaanu gi mu cosaanu ni mu amee cëslaay lu dëgër ci diine sunna dëppook sunna si yonent bi aleyhi salaatu salaam xarfan bi xarfin dara kooju am histoire bu wër ñu xam fi mu jaar xam ñi fi jaaroon itam ci ay borom xam-xam dañ doon ba a guddal moo tax waaye lu ci ne ma tuddal xarnu ñi ca gën a borom xam-xam ak lañ ca fañ ca jaar ba fi mu yëgsee suñ jonni tey jii kon lu am asaala la bu wër am cëslaay lu wër lu dëgër loo xam ne amut lenn loo xam ne lu nit mën a teg ndam diine mooy cëslaayu diine kon niñ koy jàngee itam faaw ñu xool ne am nañ ci am nañ ci ndono lu ñu war a bàyyi xel ndono loolu mooy li ñu tudde xiraat naafia daa ay ñu wuti yu wér la xiraat mutawaatir yi yëpp charte yi ñu war a daje ci yu wér la kenn du ko weddi waaye nag teewut yow boo amee ci loo xam ne sa ay la am nga war sàmm ko ndax am nga ca jag jagoo goo ca am goo xam ne keneen amu ko ci xaj na xiraat naafia imaam naafia radiallahu anhu euh, imaam malik jamonante nag moom naafia kàngam la woon ca madina di borom xam-xam nekkoon ilimaan ci jàkkee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu mu jumut jiite na ko fanweer jàngale alquran te jànge ko ci anam gu gu ay càllala yu wër ba yegg ci yonent bi sallallahu wa sallam muy càllala yu ñu tudd mi ngi téere xiraat yi ko ca dem naafi moom yi ay nit jànge ci moom alquran amoon ci ñun ndax ci ci dundam moom imaam naafi la qiraat naafi duggee Afrique moom kon teel na fee dugg moom itam lool mooy ca jamono ngirum mi fi ngirum Maalik dugg rek jamono jooju dafa dugg moom ki nga xam ne moo njëkk a dugal xiraat Naafi' ci dañuy wax ne mooy Abu Muhammad al-Ghazi al ki nga xam ne moo njëkk a dugal xiraat Naafi' ci Afrique sowu jant kooku rek ku yàgg la ndax mi ngi génn àdduna atum téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent juróom-ñeent ci gàddaay ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ca xarnu saani ca la doon dund ku yàgg la moom moomu jàngee ci Naafi' def ci ak farlu gu rëy ndax kaamilu alxuraanam bi mu yoroon daana ko ard di ko gaaral di ko muxaabala bu ñu ko mën a waxee noonu ak kaamilu imam Naafi' ba wax nañu def na ko lu mat fukki yoon ñett ñii ne def na ko lu mat fukki yoon ñeent loolu am na lu muy am na lu muy jëmmal am na lu muy firndeel moom it ba mu ba mu ca jógee nag wala ba di ko dellu si soowu jant di jàngale lam doon la mu jëlee ca Naafi' ñeneen it jóge ci naafi ci ay ruwaat yu bari bokk ca ku ñu wooye warsh warsh euh, mu ngi dëkkoon Égypte moom it ci jamonoom fés gum fés ak ràññeek gum ràññeeku tax nañu ñu bari jóge fii ak faneen dem jàngi ci moom dellu si tasaare lañ jële ci moom loola ca la waa Afrique soowu jant gépp jële riwaayatu warsh an naafi ñu di ko jokkalante ba mu yegg si suñ jamono tey jii kon loolu itam ci suñuy cëslaay la bokk loo xam ne lu ñëpp war a sàmm la lu ñëpp war a bàyyi xel la boroom xam-xami Sénégal nag ca bu yàgg lu ëpp juróomi sek lu ëpp ëpp nag ay nangami seekal ci gannaaw ñu dajale sawaab bi di yëpp di ko sàmmandoo di sàmm al madhabul ashari fil aqida di sàmm al madhabul maliki fil di sàmm at tasawuf sunni fi suluk di sàmm itam xiraatu naafia bi riwaayati warsh yii ñu dajeendoo di ko sàmm jërul guddal doy na sëkk rek ci lu koy tegtale amut kenn ci ñun ku xam benn borom xam-xam bu mu xam ca ñu njëkk koo xam ne génn na ci benn ci ñeent yi ñu tudd amut kenn ci ñun ku xam mbooleem maam yi ñuy tudd ñu doon yi borom xam-xam amu ci kenn koo mën a wax ku génn ci benn ci ñu doon wax amut xëy na sax nga ne lu mel ne ay aqida ashariya am na bu fi masana jaar ay jamono ak yu mel noonu waaye lu mel ni xiraatu war xiraatu naa fi amoon loolu moom leneen dafay mu sàmm bu yàggut yii fi dugg moom damay wax naan bi mu fi duggee jàpp naa ne baneen xiraa bu dul naafia riwaayat warsh ragal naa ne bi mu fi tàmbalee dugg jën ngaa bëri du ëpp juróom fukki matu ko sax daanaka mooy ñi fi njëkk jàng jàng bitim réew ca penk ñu ñibbisee dem bàyyi lañ nekkoon ñoom it rek bàyyi lañ nekkoon dem jëlee la ñooña nekk indi ko rek moo fi indi problème boobu am na sax ku xorom kuy nettal naan amoon na mag mu mag moo xam ne ab sëñ daara la waaye euh, nit ñëw jox ko ab kaamil mooy kaamil si rek bi mu dog dugg ci réew mi jox ko àddiya waaye bi mu ko tiimee di ci jàng da koy booleeg di yéemu naan moom mbind mi daa rafet loolu waaye daa tooy di jël xelimaan di sotti di so di soppi ma ne dañ koo tooñ dañ koo tooñ dañ koo parce que dañ ko waroon a jox kaamil buñ bindee ci riwaayatu Warsh buñ ko joxoon jàmm danaan ñooy waaye yaa ko jox lu xamut alxuraan mokkal na ko waaye daa am nu ko jàngee mokkale ko noona te loolu di lu wér di lu am cëslaay borom xam-xam yi daan yegg ci di wax ne yonente bi aleyhi salaatu salaam loolu borom xam-xam yi saxal kon mooy xiraat naafi am na masiya bu yeneen xiraat yi amut faaw ñu nangu waroo ñëw nag di fekk ñii liñ miin nga jëlaat la ne di ñëw leen ko jox te fekk ñu yor loo xam ne lu baax la luñ mën a jàpp koo ca amal jafe-jafe yaa ko tooñ ndax yaa ko indil loo xam ne waroo koon indil kon sàmm gi moom lu leer la euh, loolu ñu sàmmoon nag jàpp ko ba mu si ci ñun danaa tudd Cheikhul Khadim radiyallahu anhu yii yëpp gis nañ li ci def ci ñeent yi ñu tudd yëpp. en tout cas moom li mu ci taalif ngi nii ay téere yu dul jeex xañ na ñun liñ ci gën a miin mooy jàng Mawaahibul Quddus waaye taalif na lu ëpp ay nangami téere la taalif ci aqida ashari yu bari waxuma waaye xasida yi ñuy jàng di ko barkeeloo léeg-léeg nga daje ceeg goo xam ne sax ki koy jàng xaj na dafa dul xam waaye sëñ bi li muy wax tëggu ci yonente bi alei salatu salaam defu ci salaatu ala nabi waaye pas-pas la ci jàngale pas-pas la ci jàngale ba xasida gi jax tàkk lim ci maanaam yittewoo gi mu yittewoo aqida sari moom dafa maa yëmmoo loolu moom yaakaar naa sëñ Abdou Xaadir war ngeen ci def ay gëstu ndax yaakaar naa ne daal am na daal ñëpp ay mbóot yu ci nekk yu ñu war a yu ñu war a gën a gëstuwaat ndax yittewoo na ko daal yittewoo goo xam ne yëm na ma lool moom lool fiq maliki lim bind lépp ci wàllu fiq ci la ko def aljawar na fi sa ngi fi nahjul xaqiqa fii xat ki sitril xaqiqa mi ngi fi yeneen ak yeneen a ngi fi yim daan tontu ay nit ci ay masail fiq yépp ci mazhab maliki la koy la koy ñun ñii aju ci moom mu dénkaan ñu ko aleykum bil malikiya fa innaha mutaharatu munawara dénk naa leen ngeen di sukkandiku ci mazhab imam malik ba noppi tazkiya mazhab bi fa innaha mutaharatu munawara tasawuf sunni moom waxaale ko moom mooy léppam xiraat naafi leer na nañu liñ fi gis ci ay kaamil yu sëñ bi bind ak loxoom ci riwaayat wax su la ko bindee ba ci li muy dellu ci ay aaya alxuraan yi mu istishhaad ci ay mbindam ci riwaayat wax ñi jamonante woon ak moom ak ñëpp it ñi jàng ci ay daara yim taba yim sosoon itam ñëpp loolu lañ jàng loolu lañ xam yeneen i xiraat ak riwaayaat moom li ma wax yàggu fi muti juróom fukki at gën gaa bëri fi moom ñu njëkk a jàng bi ñu dellusee rek lañ ko fee ndaale loolu nag kon doon lu ñu war a sàmm ndax borom xam-xam dañoo yàgg da wax ne aw nit ñu nekk fañ ne lañ nekk bu doonee lu wër lu am cëslaayu diine yu yu dëgër amut benn jafe-jafe ku fa ne da war a sàmm loola tënku ca loola ndax lislaam daa bëgg bennoo daf ko bëgg te saa yoo indee lu wuuteeg loola rek yaa ngi créer ay problème ci biir société bi loolu danañ ci ñëw léegi ci kanam ci niñ koy gisee léegi suñ jàkkee yeeg ci barab yu bari ay mbir yooy ay ay ay menaces yu tàmbalee am moo ko fi jur moo ko fi kon sàmm gi moom lu war la loo xam ne kenn waru ko fayee taatu walil amri itam moom it danaa leeral balaa maa jàll ndax walil amr mooy kër kilifteefu jullit ñi walil amr nag ci cosaanu lislaam kenn la doon yilif lépp yilif jullit ñi ci wàll yëpp yilif leen ci seen diine yilif leen seen àddina waaye dem nañ bi ñun am nattu ñi ñu yilif ci suñu wàllu diine du ñu yilif ci suñu àdduna daa am ñeneen ñoo xam ne dañ ne ñoom lañ dajaleel ñoom lañ jagleel wàllu àdduna ñoo ko yor seen yoon du nekk ci diine ñoom it léeg-léeg sax nga gis ci ñooñ daanaka dañu bëgg a jàpp seen bopp wala yas bilaa noonu diine daanaka seen i jëf da koy tegtale am ñoo xam ne ñoom ñoo yor diine ji di ko taxawoo ñooñu laa jublu fii jubluwuma ña nga xam ne seen nekku ci diine jubluwuma leen parce que diine bu wax ku ñu topp mooy ki la ki la jiite ci diine jiite la ci turu diine di sàmm diine ji kookaa tax ñuy wax waaye ki jàpp ne moom yoonam nekkut ci diine séqut ak yow daray diine kooku moom sa yoon nekkut am na nag yeneen at yu ko diine jagleel yoo xam ne am na noo ciy jëflante moom ci wàllu wormaag topp ca lam lay digal lu dul lu lu worma daal ak tegginoog ñoom ak it lu ñuy digle nag ci yoo xam ne du du lu wuteeg diine nga nga nga tënku ca ngir mbooloo mi am jàmm waaye ñi yor wàllu kilifteefu diine te bu ma koy wax précisément damay wax ne mooy li ñu tuddee al xulafa tey xalif généro yi tey ñooñu ñooy suñ awliyaawul amr wala ñooy suñ awliyaawul umur ñoo yor suñuy kilifteef ci wàllu diine te kilifteef ci diine moom lislaam da koo réyal dañ koo fonk faw dañ ko war a sàmm di ko topp ki yilif ci wàllu diine li feek defut kéefër gu leer naññ defut yenn mu xaalafaat yu fës yenn yi tam jëm ci àqi mbooloo ma dañ ko war a topp ca la muy def saa yu teree saa yu diglee nag lu yàlla tere wala mu teral yàlla digle moom dañu lànk moom ndax nag yàllaa ñu moom kenn moomu ñu waaye li fekk mi ngi tënku ci li yàlla digle di bañ li yàlla tare di digal nit ñi leen yàlla digal leen tare leen yàlla tare di leen jaarale ci seen maslaxa boobaa lislaam daa digle ñu tënku ci seen gannaaw topp leen te bañ leen mooy loolu itam lu mat sàmm la li tax nag ma koy tudde man ne suñ sababi troisième la bokk mooy ndax daa yàggut lool yàggut lool dëgg la fonction moom yàgg na fi ndax ak xilaafa am ci Sénégal yaakaar naa gu fi gën a yàgg du ëpp du ma téeméer waaye ñooñu ñuy tuddee ak xulafaa wala am euh, xulafaa yooyu dañoo am ñu fi wutu ñañ fi wutu woon fonction ba ñu yoroon ñoom moom lañ taxawal moom lañu jëmmal moo tax itam dañoo war a topp ci seen gannaaw ci seen i ndigal ak mooy seen i tere ci cadre ni ko charia digle kon sàmm gi ñu war a sàmm ndono yooyu day lu mënta ñàkk lu tax nag mënta ñàkk mooy yu bari xam naa dama koy tënk ndax waxtu waa ngi sori li jiitu rek mooy dañu gis ne sawaabit yi ñu am yëpp daa dëpp ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yëpp buñ ko toppee benn par benn yaakaar naa li ma doon leeral léegi kum leer ci yow da nga xam li ma bëgg a wax lu mu dëppoo na ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am ci yu wér ñaareel bi it dafa dëppoo mabda bu am solo ci lislaam mooy li ñu tuddee al wasatiya alquran dana woon wa kadalika jaalnaakum ummatan wasata li takunu shuhadaa ala nas suñ borom dañoo def ñu nekk xeet woo xam ne dañoo dañuy diggu doomu kon digg doomu ci lislaam dañ ko bëgg sawabi ji itam diggu doomu daf cee feeñ bu ma ko doon détaillé ci lu tënku rek en qidaa misaal pas-pas la bu digg doomu bopp ëppal gi amoon ci ñaari kuréel wala boo doon misaal rek ci kuréelu ahlul asar ci sun biir nga xam ne ci ahlu sunna gaa lañ bokk nem même misaal boo doon jël lu mel ne masalatu euh, murtakibul kabira masala boobu ñuy wax danga gis ne kuréel yi fi nekkoon lu jiitu dañ cee wute wuute boo xam ne dañ ci ëppal gis ne lu mel ne mu'tazila ña nga woon fee xawarij ne képp ku def bàkkaar bu mag maanaam ab jullit bu naanee sàngara léegi ab yéefar la léegi doona tutub jullit génn na ci lislaam Zayd mais bu demee naan butéelub ñoll tay génn na ci lislaam léegi doona tutub ab jullit doona tutub jullit daa am lu ci tegu mooy ne bu yoroon soxna soxna sa day tas doom yi mu fi bàyyi bu faatoo duñ doon mante moom yu bare bare ci toftalu xam nañ ne te dañ ko war a rey ak yeneen ak yeneen yu bari ëllëg yàlla séqut ak moom àjjana loolu ëppal bu jéggi daay la xam ngeen ne mu'tazila ñëw fee wax wax ju kenn mënta firi ne murtakibul kabira fii manzilatin benn manzilatayn moom dug jullit dug yëfër kenn xamul loolu la ñuy firi di da ngay weex mbaa nga ñuul waaye dug jullit dug yëfër loolu kenn xamul kenn mën firi ahlu sunna bi euh, xusuus al ashaira wax lu leer daan ne déedéet yëf du denn ci ñaar yooyu ngeen wax li am mooy ab jullit kenn du ko jàppe bi yéefar ngir jëf ju ñaaw jum jëf rek mu yab bàkkaar mukk ab jullit bu naanee sàngara du ko tax a doon bu yéefar mukk lu muy doon dañ naan ko boo ko dëkkee def nangoo ko ba li fee yaa ngi dund ab kàccoor daal lañuy jàppe yow daal booy boo xam ne ku sàggan nga nag ndax ab jullit nag wurta def lii bu ko yàlla nattoo ba faatu ca tuubu ko ñu ne faatu nag bu xasee am la ca des mbirum yàlla su ne nekk mënatuñ ko àtte lu mën a xew ab jullit la woon ndax daana seere na yàllaay boromam yonente bi alei salatu salaam mooy yonente bi kon ab jullit la gaa la ca des nag bàkkaar la yu mu doon def moog yàlla ko séq bu ko neexee jéggal ko ko boo ko neexee topp ko ko lu mën a xew ñun du tey ñu wéy di ko ñaanal yàlla mu yoroon ko jéggal ko xoolal pas-pas bii ni mu leere ak ni mu bëree yërmande ci nit bu ñu yoroon pas-pas yee tey nan la ñu def toujours ñu gis ci suñuy bokk ak suñuy ñu ñu xam ñoo xam ne ñu ngi def ay jëf yi islam di tere buñ leen jàppee yéefar musiba am buñ faatoo ñu ne ay lañ yàlla sawar lañ jëm kenn du la ñaanal musiba la loolu te nag ba kuréel yooyu pas-pas yooyu ñu yoroon am na kuréel yii fi amaat ñoo xam ne mujj nañ doon sax ahlu sunna lañ bokk waaye ëppal nañ ba mujj dugg nañ ca gisin yooyu tey guñ tay tey ñi ñuy tudde salafiya tey wahabiya tey seen ëppal yóbbu na leen ci wàllu murtakibul kabira danañ ci waxee noonu jullit buñ gis muy def ak mooy yàlla ab yéefar lañ ko daa def fisaasi ab yéefar lañ ko daa def fisaasi loolu ak ëppal la kon diggu doomu gi bokk na ci li tax ñu war koo sàmm war koo jàpp bokk na ci it euh, dëppale gi mu dëppale al muzaawajatu bayna al aqli wa naql alxuraan ak sunna dañ fay ñëw nekk ay texte di ñu wax ñu war di def waaye am na am na ci loolu nag am na ci biir wax yi yooyu pour ñu jàngale ko leeral ko faw ñu boole ci xel ngir mu mën a leer ci boppam nit misaal mi moom na joxe léegi boo nee ñu dem ci alxuraan alxuraan ne yadullahi fawqa aydihim inna alladina yubayi'unaka innama yubayi'una allaha yadullahi fawqa aydihim léegi te yàlla waxoon faneen ne laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir yàlla niroowut ak dara dara niroowut ak moom ba noppi ñëwaat fii ne loxo safrulaa ci waxin wi loxo bi yàllaa ngi seen kaw loxo boobaa problème dana am ci kii dégg dana ah kon de xanaa alxuraan daa mel daa wute li mu wax daa wuute te mun mënta li mu wax mënta wuute bu wuutee rek jafe-jafe am kon faaw ñu leeral ngir nit ki mu mën a dugg ci boppam ñu ne ko lii kat niñ koy jàppe mooy dañuy gëm ne lii yàlla wax ca dëgg-dëgg ja lu am la amut lu ñu nattaleeg sik sàkk waaye nag ngir nga man koo dégg mu jege la ñu firil la ko ci firin wu leer woo mën a dégg mu jege ñu ne la kat mooy kàttanug yàlla la bëgg a wax qudratullahi taala fawqa qudratihim la la bëgg a wax rek ci mu jegeel la ko maanaam xam nga bu njëkk amoon na ay boroomi xam-xam yoo xam ne ca jamono yàgg ma taabi'un ya ñoo xam ne jamono jooja waxoon naa ko ci gannaaw fañ tolloon am na lañ laaju laaju ko woon jamono xeeti taawil yeeg yëpp ak firiyaan yi dawuñ ko def dañ ko daan wax ci jamono taabi'in yi bu ñu leen laajee loo ci wàllu mutashabihaat yeeg yooyu ñu ne imaam Ahmad ibn Hanbal sax daana ko wax tafsiruha bilaa bila kayfin wala maana mutashabihaat yi firi gi mooy da koy jàng rek noppi ci waaye léegi loolu kan moo ko mën a def ki ko mën a def mooy arab bi nga xam ne daa judd ci arab waaye Mirza nangam ma juddoo ca Faris wala am samba ma juddoo ca Sénégal doon ak jullit bokk yam ak ñëpp ak ci lislaam ji war a xam ci alxuraan dara ñëw aaya bi mu bëgg a xam nuy firi doona ko jàng ko rek fa noppi boo ko mën naa waral suba mu génn ci diine ji wala mu wóoyee ay sik sàkk ci diine ji ba defee ñu jegeel ko ko pour mën koo dégg ci anam gu gàtt loolu rek moo doon jubluwaay bi euh, baneen ci bokk ci sàmm sawaabit yi dana tax ñu am li ñu tuddee am na ruux yi sécurité ci wàllu spiritualité suñu wàllu dundinu diine li ñu ko mën a may moo ñu sàmm suñu ndono yi ñu am ndax bu ñu ko sàmmul rek ay fir ay fitna yu dul jeex la ñuy andil te fitna yii ñuy wax am na ñu ci jot a mos lu bari ñoo xam ne xam nañ ko tey lii ñuy wax nii boo demoon Nigéria tey doon ko fa waxtaane danañ xam njariñu li ñuy wax lu mu parce que mos nañ conséquences yi ñàkk koo sàmm li mu leen jural ay junni junni yu dul jeex faatu nañ fa ay junni junni tasaaroo génn réew ma dem ci yeneen réew dootuñ fa dellusi ba faw ñu yàq fa yàq yu du jeex te dara ju dara sosu ko lu weesu lu mel nii ay nit dugg fa indi fa ay pas-pas ak gisin yu wee yu yees dugal ko ci bopp nit ñi ba def loo leen seen i mbokk ak seen i baay ak seen yaay ay yëfar ñu jël ay ngànnaay di dal ci seen kaw di leen rey ay fitna juddoo fa yu kenn mënta lijjanti euh, beneen bi itam mooy am na ay menaces menace nag bu amee doo si toog di ko seetaan waaye dee sa war a jóg taxaw ngir luy tax ba du yegg si menace yooyu yu bari la salafiya wahabiya gii ñuy wax ci la bokk ci menace yi gën a la bokk faaw ñu tudd ko chia yii menace lañ amaguñ doole nag ci Sénégal ni ko salafiya amee waaye ñi ngi ñi ngi ràmm boo demee Ndakaaru am nañ fa ay jàkkaa ki yëf ay gox ci biir Sénégal ña ngi fay dugg di fa tabax ay jàkka ak tabax ay juma ak di dugal ay nit ci lañ nekk. niki noonu itam awlama bii ñuy dund rek tey ci menace yi la bokk ndax jafe-jafe la boo xam ne bari na loo xam ne moo ko fendi buñ xoolee ci wàllu waxaab yi jeexital yi jeexital yu bari la ak takfir bi dan bu jooju ma wax léegi ci la bokk ku def naka sub noonu nga ne ko ab yëfar la bu fekkoon benn waay fii. ci barab bu ku baax ki mu taxaw tàllal ay loxoom nii di ñaan rek mu ne yëfat la day bokkaal yàlla bokkaal yàlla noonu rek la maanaam fu nit defee nangam rek day bokkaal yàlla doo xool lay pas-pasam ak lu mu gëm ak lii nu mu ko jàppee dara boo ko toppee day adduna sëpp dañu mujj nekk ay bokkalekat beneen bi mooy ci seen jeexit ñoom taw tawsi'u daa'iratul haram xam ngeen ne bi fi almadu salafi tàmbalee tasaaroo nga ñu du gis fuñ toll baatum araam ba yow ne ko ma moo ñi wax ñoo yam dong maanaam ab fii la wahabi piir boo xam ne li mu bëgg mooy moom ñee jubóowuñ projet ba ñee am moom la am li mu bëgg mooy toxal ñee ñu dem mu ñëw imposé boppam mooy itam fexe ba ngeen bañ jàkka ji boo leen bañ a jàkka ji moom mu ñëw installé leen jàkka jàngal leen dugal leen ci wahabi am loolu kese la bëgg mooy objectif am du layn kon yooyu yëpp mën naa bàyyi xel ñu boole ko nag yar ci ndaw ñi jàngal leen ko yar leen ci ak xiyam yi juddoo ci sawaabit yi ñu dund ko ci seenu dundin ak seen suluk mu doon loo xam ne leen di jariñ lay doon ci seen dund gépp maa ngi tënk foofu ndax euh, waxtu wi jot na euh, tomb bi yaatu na yaatu gopp lees ci war a leeral dafa bari ndax dafa dafa yaatu dafa bari ay ay bunt yu ci aju waaye di di wàcce suñ rek di tàmbalewaat yamaat fañ tàmbale woon mujj fañ tàmbale woon sant daayiratu Muqaddamatul Xidma ci taxawaay yi ñuy def ci njiitul sunu wayjur sunu kilifa sëriñ Afiya di ñaan suñu borom mu dëgëral leen te sàmm leen taxaw leen gën leen a yokk ay ndam ak kàttan ak man-man ci taxawaayu rafet yi ñuy def ak ci mboolem taxawaay yi ci des yëpp te suñu borom nangu ko ñu daj ci ngërëmul Cheikhul Xadim ñaan suñu borom itam jafe-jafe yi am ci àdduna ak mbas yeeg yëpp itam suñu borom tebbi ko te delloo ñu ci xaal bu gën a baax gën a rafet bañ nekkoon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.